ah à Matam. voilà à Matam donc Farba Ngom franchement bu mu def en tant qu'homme politique bu homme politique yëpp meloon nii ñëpp bu ñu meloon ni moom politiquement ci suñu région région dina dina dina raw fii. parce que ci président Macky Sall lañ ko lañ commencé xam sax ñun lan mooy impactu état ci dans notre région parce que ñun Matam les écoles les hôpitaux les postes de santé tout tout a été fait quasiment par la diaspora ak les ak les ak matamois ñun xamuñu xamuñu xamuñu état Macky Sall moo ñu xam moo ñu xamal luy état ci président Macky Sall lañu xamee état collège même même Woussog bi ma nekk lycée bi ñuy bi ñuy tabax daa fale ko ñu ñu participer population bi participer fi ñu foofu loolu lañ mentalité boobu lañ am euh, Matam léegi rek la fi président Macky Sall indi ñu ay des grands projets comme la route du Daande Mayo euh, la route Ndioum Ourossogui Ourossogui Bakel l'aéroport de Ourossogui 14 milliards l'hôpital régional de milliards avec les fonds de l'État avant c'est la diaspora qui faisait tout et donc maa ngi profité vraiment pour dellu leen njukkal parce que ma toogee fii tey en homme politique nekk maire de Ourossogui jóge Matam war naa mën a d'abord avant tout nuyu waa diaspora de Matam leen remercier leen féliciter leen aussi ci seen taxawaay parce que Matam tey bu évolué nu mu évolué nii c'est grâce à à la diaspora nos nos nos grands-parents nos ba tey jii tey ñi nekk tey diaspora ba léegi seen loxo jógewul jógewul ci Matam donc politique yi nag. ci Farba lañ gisee génération Farba Ngom bi lañ gisee des hommes politiques qui sont actifs qui font tout pour amener des projets importants dans leur commune et dans leur localité donc maintenant politique nag dafa difficile parce que dafa mel ni bëgguñu nit évoluer parce que tey jii man mënu ma mënu ma comprendre comment tey nan ban intérêt la un un mat doomu Matam am di xeex Farba Ngom jéem a wàññi doole Farba Ngom. ça n'a pas d'intérêt aussi la Farba Ngom am di xeex doomu Matam. non xeexul Farba xeexul kenn c'est-à-dire aujourd'hui la situation que qu'on vit aujourd'hui c'est quoi Amadou Ba a été choisi par le président de la République am na Matam yu bëri ñoo xam ne moo nekk seen xol seen xol seen seen seen choix boobu tombeek choix wu président de la République. muy loo xamante ne ñëpp sawar ci ñëpp kontaan ci mooy ñu ànd ak Amadou Ba depuis le avant même le choix du président de la République ñoo xam ne ñoo xam ne bu soo seen sago ñu tànn président Macky Sall tànn président am président Amadou Ba ci ñooñu la bokk am na ñoo xamante ne responsable politique aussi de haut rang ñoo xamante ne ñoom seen choix dafa nekkoon ci yeneen membre de benn Bokk Yaakaar notamment Abdoulaye Daouda Diallo par exemple ñoom kooku lañ kooku lañ bëggaloon président tànn ko deux mois après le 3 juillet le président Macky a fait son choix muy le président Amadou Ba. léegi. léegi cette peut-être cette euh, cette cette situation là mooy situation bu xaw a bees maatam c'est-à-dire que aujourd'hui responsable politique ils étaient très actifs derrière Abdoulaye Daouda Diallo aujourd'hui ils ont des aujourd'hui ils se disent que voilà c'est comme si Farba a gagné parce que Farba lu mu bëggoon ci xolam. loolu loolu moo am ba tax ñu indi petite sorte de petite division la qui n'a pas de sens. Arouna Dia il était dans quel xaaral rek dans la mesure où aujourd'hui te xam nañ tey jii ñëpp ñu ngi ci gannaaw candidat bi Amadou Ba tout le monde donc moo tax man j'appelle vraiment les Matam à la. Arouna Dia il était dans quel camp. non Arouna Dia man je pas ban camp la bokkoon. xam nga Arona ah Arona ba tey kenn déggu ko mu wax. non je ne sais ma. non ma ne c'est pas ma ne. déggoo ko boobu ba tey mu wax Daouda Dia Kesseur déggoo leen ñoom ñu taxaw positionné wu dañ leen doon dugal ci camp bi jékki-jékki ñu ne génne nañ ko fii. Ah wax nañu man je ne parle pas de personne man damay wax rek simplement. léegi au nom de xam nga xam nga ah, y a un débat à l'APR que je ne comprends pas pourquoi. Mm-hmm. parce que des ont pris le pari de soutenir Amadou Ba balaa président di ko désigner officiellement pourquoi tout simplement parce qu'ils ont pris ce pari la ils se sentent plus légitimes que ñi nga xam ne par exemple dañoo ne woon ah ñun kat président la ñuy déglu pourquoi ils se sentent plus légitimes que ñi nga xam ne Abdoulaye Daouda la ñu àndaloon waaw non xam wala Mohamed Boun Abdallah loolu loolu loolu yow yaa ko wax loolu ah, loolu yow yaa ko wax en fait c'est ça président dafa nekk ku bëgg a nekk candidat nekk na am ñu am ñu def am ñu déclaré seen candidature nous sommes en politique ku nekk am nga sa xol fu mu dem ku ne am nga fu mu dem donc mënoo repousser ñi ñi seen xol dem fenn mais aujourd'hui la situation d'aujourd'hui mooy lan mooy on a un seul candidat c'est le président Amadou Ba ku ko ku nekkoon ci xolam ak ku mu nekk woon ci xolam yëpp c'est pas c'est pas important c'est pas important moo tax d'où que aujourd'hui nit bu ñu wootee réunion bu ak ak ñoom euh, ak honorable député Farba Ngom kay le coordonnateur ñu woot woote réunion amul baa nga àndal doo dem parce que simplement Farba moo woote wala day Farba sax woote wul c'est le c'est Mamoun Talla moo woote moom moom mooy délégué régional ba parrainage moment bu wootee ñëpp ko war a wuyu. justement c'est ñëpp ko war a wuyu. xam nga mais ñii bañ a dem ñii dem de façon la majorité des responsables de la région. ils étaient ils étaient au rendez-vous. non la majorité n'était pas au rendez-vous. non si si. la la la majorité n'était pas au rendez-vous. bien sûr. ah mais majorité était était au ah, rendez-vous. xamal li tax ma indi. sa sa sa débat dafa mel ni aujourd'hui euh, Matam dafa fracturé wu. Euh, Matam nag le leadership de de de Farba était avéré mais dafa mel ni euh, leadership boobu sax am na ñu ko commencé am ñu am na ñu am commencé am le courage contesté ko xam nga Mamadou Talla dafa convoqué une réunion. moom mooy le coordonnateur régional du parrainage réunion ba yow yaa ngi fa woon. maire de Ourossogui ah vous êtes maire de Ourossogui vous y mais j'ai une liste de de de, de personnes yoo xam ne waroon nañu fa nekk nekk fa et loolu dafay wane ne aujourd'hui Matam c'est très divisé alors Abou Diallo Balel maire de Ogo ñëwul Daouda Dia ñëwul Malick Sall ñëwul euh, Alfousseyni Ndiaye maire de Worobe ñëwul. Euh, maire de Waoundé Nourou mm. Soumaré euh, ñëwul Amadou Samba Kane maire de Amady Ounaré ancien DG Lonase euh, ñëwul l'ancien DG du garde des so Malick Sall Nasser Ndiaye ñëwul Oumar Diallo ancien DG des douanes ñëwul te réunion bi Mamadou Talla moom moo ko convoqué woon Aliou Dembourou député ñëwul galo Diallo maire de Ranérou ñëwul toutes ces personnalités là Euh, nekk ay élus locaux des responsables ñu mhm. convoqué une réunion euh, ñëwuñu est-ce qu'on n'est pas en droit de douter aujourd'hui euh, de l'union de Benno Bokk Yaakaar au niveau de de Matam. xam nga bon ñi ñëwul nga wax mais ñi ñi ñëw waxu cité woo ñi ñëw. mais ñi ñëwul dafa dafa dafa bari de. non non je te hmm. mu neex nit ak mu naqar nit c'est la vérité son leadership est incontestable. loolu nit mu nga ne mu nga ne Farba neexuma mu nga ne bëgguma Farba bëgguma waa Agnam bëgguma waa Bosaye bu la neex nga wax loolu mais tey jii kenn mënul contester le leadership de Farba Ngom la région de Matam parce que lu mu fay def comme action politique pour le président de la République lu mu fay def pour action politique pour le candidat Amadou Ba amul kenn ku ko ci def personne y en a pas. mais est-ce que du. division bi moo tax. non y président jël décision. il sort Mamadou Talla qui était dans le camp de de de de, s'entendait bien en tout cas avec Farba Ngom et il rééquilibre les forces en nommant euh, Daouda Daouda Dia euh, ministre ouais, de l'élevage. xam nga aujourd'hui loolu xam nga ce choix du gouvernement c'est le choix du président de la République. mais est-ce que mënuñu ci mm, mm. des forces. non pas euh, Talla il est il est gouvernement depuis combien de temps. depuis donc aujourd'hui qui est un un un renouvellement président République moom mooy. moom mooy loolu soit mais Serigne Mbaye Thiam est euh, au gouvernement loolu soit président République la loolu loolu mën mën mën a toog fi naan man président lii moo tax mu dindi kii lii moo tax mu teg mu teg kii moo tax mu teg kële mais li ma xam ne le constat que je fais c'est que aujourd'hui de façon tous ces leaders dont vous parlez sont pour le candidat Amadou Ba te loolu moo am solo en fait en réalité maintenant aujourd'hui qu'il y ait quelques personnes yoo xamante ne d'accord uñu ak euh, Farba loolu ça n'enlève en rien ab ah, je dis bien en rien son leadership man waa waa Matam ni may déglu waa Matam waa Matam ni may déglu action Farba Ngom sur le terrain social sur le terrain politique sur le terrain euh, sur tous les terrains aujourd'hui à Matam amul. benn homme politique mais mais am na contestation. mais mais mais man man Ourossogui j'ai j'ai mais je le maire boo xamante ne j'ai une première fois dès ma première candidature en 2014 j'ai eu un deuxième mandat en 2022 pour la première fois un maire am deux mandats consécutifs à Ourossogui man bu léegi am na ay opposants. non y' a des gens y' a des gens y' a des gens waxuma waxuma opposant c'est-à-dire. même dans la paire même même dans la paire y' a des gens qui sont pas avec moi. dafa am aujourd'hui beaucoup de responsables de Matam yu commencé di contester le camp de Farba te loolu amul woon. non xam nga contester camp de Farba je veux dire contester quoi. qu'est-ce qu'on conteste lan lan lan lan la ñuy xeex lan qu'est-ce que ñuy xeex lan aujourd'hui est-ce que Farba dafa def dafay xëy di xeex nit wala di poser des actes yoo xam ne day affaiblir nit non non au contraire moom lépp lu président Macky Sall bëgg loolu la bëgg parce Sénégal nag y a y a y a un souci parce que y a y a des intellectuels yoo xamante ne ñoom ils pensent que intellectuels lañ ñoom mënuñ topp ci koo xamante ne peut son niveau niveau d'études amul fu mu yegg ñoom ils disent que non non duñ topp ci kooku parce que simplement ils que c'est des intellectuels c'est donc duñ nangu duñ nangu topp kenn mais Sénégal boo ba sa loxo ne topp ma topp kenn yi sa loxo ndeyjoor euh, càmmoñ. ne ne si kenn du topp. qu'est-ce que vous répondez à ah ceux qui disent que Malick yow la jëndee Malick Sall. et que yow vous êtes man, man, encore fidèle parmi les fidèles de de de ah, a qui vous appellent même le chouchou de Farba. man j'assume <laughs> j'assume mon amitié avec Farba man bi may nekk maire je ne connaissais pas Farba Ngom 2014 avec des gens qui avec qui j'étais dans le combat politique dans ma propre commune j'étais au PS eux à l'APR accompagné par Farba qui a tout fait pour ces personnes là. yàlla may ma may ma ndam c'est après qu'on s'est rencontré j'ai vu c'est un homme formidable boo xamante ne franchement ñun matam on gagnerait ak gën ko jàpp gën ko jàppale parce que loolu moo suñu ndam tey ci man ma gisuma man ma gisuma sax intérêt un homme politique de matam nga yow def tout yow pour non t'es pas d'accord avec Farba da ngay xeex Farba mais pour lan qu'est-ce que qu'est-ce que tu gagnes tey bu ko neexoon tey mu bàyyi politique dem këram toog bu bàyyi politique kë këram këram toog jeunesse Matam ñoo ci souffrir waaw Matam ñoom ñooy perte un leader un leader incontesté loolu c'est la vérité donc nit ki bu ko yàlla mayee dara da nga koy nangu da nga koy nangu boo bëggee am jàmm man man man Moussa Bokar Thiam j'assume mon amitié avec Farba j'assume mon compagnonnage ak moom. tu assumes ton arrimage euh, aussi. par rapport à quoi. <laughs> non Farba c'est le leader. Farba c'est le leader c'est le leader c'est notre coordinateur politique. c'est notre coordinateur. donc Farba mooy sa leader mais bien sûr. ok coordinateur. mooy mooy politique désignée par le président Macky Sall mu géré et il gère très bien man en tout cas li ma koy wax daal mooy lan na gën a góorgóorlu àdduna aussi munoo am aussi am lépp foog nga am toujours des gens qui te mais kontaan na xam mais na xam aussi que na xam aussi que qu'il a avec lui il a derrière lui il a avec lui des hommes politiques de valeur yu ànd ak moom qui le soutiendront jusqu'au bout quoi que ça sa ça ça vaille nag parce que xam nga fii Sénégal moom. bu ànd ak Farba bu nit bu nit ko contrer Farba sax ñëw contrer te dafa ko dara amoo benn relation ak moom xam nga loolu si ça arrive en politique mais c'est c'est la c'est la c'est le combat loolu des hommes politiques de qualité yoo xamante ne dañuy ñëw dem jëli di indi ci biir région bi fu ko mënti def baax na mais li important mooy nga ñëw def sa biir commune def ci région bi lu fa kenn loolu mooy un homme loolu mooy valeur d'un homme politique. c'est pas les postes c'est pas les directions yi nga am wala yenn postes yi nga am c'est pas ça qui est important mooy l'effet que pour la population et la j'appelle la population de Matam aussi à plus de vigilance tey jii Matam. vigilance pourquoi dafa am lu leen di tromper parce que pour éviter justement parce que def combat fu combat amul combat amul entre les membres du Benno Bokk Yaakaar c'est pas un combat suñu combat ke ña lañu combat ñi nga xamante ne nekkuñu ak ñun. donc y' a pas de combat entre le camp de de Arona Daouda Dia a pas de combat aujourd'hui Farba c'est un homme politique d'une grande dimension am ñoo xamante ne nangu nanguluñu ko lu ko yàlla may loolu am na loolu loolu mënu si dara il n'y peut rien du tout mais je sais qu'aujourd'hui il a avec lui des responsables yu engagés yoo xamante ne jusqu'au bout dañ tënkee dañu ànd ak moom gunge ko ci combat bi ñu nekk. et quels sont vos rapports ak Daouda d'ailleurs je le félicite au passage pour sa nomination en terme en, en, en tant que ministre. ça ne fragilise pas votre camp. non pas du tout au contraire. Hmm. au contraire aujourd'hui nous les ministres de la région muy man muy daaw Daouda Dia mais notre démarche boo xam ne dina neex président de la République dina neex notre candidat Amadou Ba mooy l'union mooy favoriser ñi ñi nekk nekk benn àndandoo xàccandoo dóorandoo man tous les hommes politiques ngay wax nii yëpp man sont mes grands frères j'ai d'excellents kenn j'ai d'excellents rapports avec le monde. mais par contre. Et avec Malick Sall. on a d'excellents rapports c'est mon doyen c'est mon confrère avocat d'ailleurs c'est mon doyen on a on a aucun problème kenn mënut a fi ne Moussa Bakar am na problème ak diw ak diw amul y a pas je n'ai aucun problème avec personne mais par contre j'assume moom pleinement sama relation ak Farba Ngom. loolu moom ay je l'assume et fu mu taxaw. danaa fa taxaw fu mu taxaw sax naa fa taxaw parce que c'est ça ma démarche c'est ça mon engagement politique ak moom ci loolu lañ nekk neex neex maa ngi maa ngi encouragé waa Matam aussi ñu gën a góorgóorlu ñu gën a góorgóorlu parce que ñu def politiciens yi ñu ñu nekk fii yëpp ci ci région bi nous avons un engagement. Matam est divisé hein. Matam. très divisé, divisé même politiquement am na ñoo xamante ne peut-être que d'accord ñu ci ci Farba Ngom loolu loolu loolu yan ci yàlla yàlla amul nit mu mun a munoo ko am. loolu munoo ko am il nga am toujours des gens qui te contestent c'est clair donc loolu loolu loolu du problème. mais li am solo moom solo mooy ñun waa Matam ñun waa Matam bëgg ñu réfléchir tuuti rek nous avons aucun intérêt aujourd'hui à affaiblir un leader politique bu bokk si ñun amul sens. merci amul sens. merci.